الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان mbokk jullit yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñu ngi ñaanal sunu yonent Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal mbokk jurit yi ñun ñëpp ñoo war a ànd tey laaj Sénégal fan la jëm lan moo waral waral laaj boobu mooy jàpp gi ñu jàpp ne lépp lu xew ci réewu nasaraan yi dafa war a xew ci sunuy réew xam ngeen ne weer yee ñu gën ci Europe dañ fa légaliser góor jigéen ci juróom-ñaari dëkk ba ci France moo ci mujj ba loolu waral na pape bi daal di démissionné ñu layee ne dafa màgget fekk dafa gis mission moom moo yàqu dafa gis ne dañ ko déggalul dëkk yi ko fa yëkkati yépp dafa leen a tere ñu lànk mu démissionné ngeen gis barki démb fii ci sunu réew ñu mel noonu di ay góor jigéen dajaloo ci benn hôtel def fa seeni waxtaan seeni réunion ba tënk benn kayit fas yéene ko dugal biir assemblée nationale pour ñu woteel leen ko pour lan képp koo xam ne góor jigéen nga buñ la jàppatee bu la kenn tëj ndax am nga ci droit nekk góor jigéen looloo tax ñun ñëpp ñu war a laat fan la ñu jëm bu njëkk ba ñëkk a nekkoon dañuy nëbbatu parce que lu lu ñu ŋàññoon la lu diine ŋàññ la lu yonent bi wax la yàlla wax ci bal sax ña ko doon def borom bi subhaanahu wa taala moonu nettali ci Qur'an waxul sax yonent bi na ko leeral waaye yàlla moo wax nu mu leen def mooy nitu Luut qawmu Saduum léegi nag ñun ginnaaw ba ñu rafetloo bépp mbon ginnaaw ba jikko yi yàqoo réew mi jadd amatul diine ji kenn ku koy waxal kenn koo dégg muy wax tey ci diine luy feesal poosam la walla luy feesal ay kontam amma diine bi fi yàlla bàyyi woon ak yonent yàlla yónnee woon ko yonent yow yonent ñëw leeral ko diine jooju moom tey amul kenn ku koy waxal yal na yàlla yërëm El Hadji Omar moom mi waxoon ne ku dee am nga ku la jooy ba mu des diine ku dee ku ne am nga ku la jooy ba mu des lislaam muy wax bu wér tey keroog ba Ablaye Wade di jógee jël benn loi di ko dugal assemblée ne day bloqué kaaru votant bi suñ ko wotelee benn nombre rek day jàll premier tour keroog ñun ñëpp ñoo gisoon sénégalais yi jóg yendu assemblée di xeex ba am ñuñ ci gaañ am ay oto yu ñu lakk am kër yu ñu taal lan moo nekkoon seen jubluwaay mooy sama constitution bu ko kenn laal est-ce que jotul tey ñu ne sunu diine bu ko kenn laal est-ce que jotul tey ci Sénégal jullit yi génn na seen diine bu ko kenn laal ndax la jig Europe jigul fii ñun ay jullit lañu ñun ay jullit lañu jullit du moom day dox ci ni mu gisee waaye day dox ci ni yàlla bëggee yàlla def ñu woo ci Qur'an mu ne ñu yaa ayyuha alladina amanu udxulu fi silmi kaafatan wala tattabiu xutwati shaytan shayatin borom bi def ñu woo ci Qur'an mu ne ñu yéen ñi gëm yàlla yaa boobu saa yoo ko déggee rek baat buy woote la yàlla moo woo ñan la woo ñi ko gëm lan la leen di doyee mu ne dugg leen ci diina ji lépp diina ji dañuy dugg ci lépp waaye xam ngeen ne lu nu dal tey mooy dugal sunu tànk ndeyjoor rocc sunu tànk càmmoñ gëm lii weddi lii loolu mooy li nu dal tey li ñu borom bi subhanahu wa taala di waxe ci suratul baqara afa tuminuuna bi baadil kitab wa takfuruuna bi baad فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل أما تعملون borom bi moo ñuy wax ci suratul baqara mu nañu ndax da ngeen a gëm da ngeen a bëgg a gëm lenn ci téere bi bàyyi leneen li leneen li ngeen weddi ko buñ ne tabaski ñépp xam ne neex na ndax biir yi day fees ñëpp de dëgg la ah kay bu ñu wootee lu am lekk rek ñëpp ne dëgg la waaye bu ñu wootee yàlla kese nga xam ne bakkan dootuñu dootu ci feeñ martaba dootu ci feeñ daraba daraja dootu ci feeñ nga dégg ñu ne déedéet ñu commencé tàqalikoo ñii gëm ñii weddi te lépp yàlla moo ko santaane yàlla ne da ngeen a bëgg a xaaj diina ji ñaar gëm lii weddi lii góor jigéen amul place ci société islam yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na saa yi ngeen jàppee ki koy def ak kiñ koy def faqtulul fa'il wal maf'ul nañu rey ki ko def ak kiñ koy def ñoom ñaar yëpp dañ leen a war a rey amuñu ci place lu dul dóor leen jaasi ñu dee ñoom ñaar loolu luñ ci ragal yàlla moo ko wax te li yàlla wax def rek bi ñu gëjee am jàmm mooy bi ñu noppee tëral li yàlla wax góor jigéen góor ak jigéen ak góor naka la ñuy sëye bu góor ak góor sëye bu jigéen jëm loolu sax jigéen ñi jàpp naa ne ñoo ci waroon njëkk a wax ndax loolu moom baaxul ci ñoom naka la góor mën a téye bague mariage di ko dugal ci loxo góor dama seetaan benn reportage ñaari góor ñu yor benn xale bu góor ñu ne seen doom la dañ koy yar ñaari góor jigéen suñu yaree benn xale bu góor su màggee lu muy nekk ku nekk fi nga toog tontul ci sa xol ñaari góor laa wax góor jigéen suñu yaree benn xale bu góor ba xale boobu màgg lu muy nekk bu ñu yaree ñaari xale lu muy lu ñuy nekk suñ yaree ñett lu ñuy nekk suñ yaree juróom lu ñuy nekk su fekkee loolu tasaaroo na ci biir àddina bi fu ñu jëm léegi nag ñun li li ruslu Sénégal mooy lépp lu ñuy ruumandaat day fekk pare na dañuy xëy rek teg ko ci kaw julli ji julli ji daal di koy nangu te bu dee bu dee problème mu adduna la ñëpp jóg bu dee problème mu tariixa la ñëpp jóg bu dee problème mu kër la ñëpp jóg kër googu jóg bu dee tariixa bi tariixa bi jóg bu dee parti bi parti boobu jóg waaye bu dee diine yàlla ji moom doo dégg kenn jóg doo dégg kenn wax fan la ñu jëm Sénégal quatre-vingt-quinze pour cent musulmans loolu waroon nañ ko fay rus sax waxuma la di ko lépp waaye di ko wax ci réew moo xam ne dañuy tiitaroo ay kilifa ndax lii kon lii bu ko alaaji Malick yëgoon tey Cheikh Ahmad Bamba Abdul Qadir gaa yu baax yooyu deewoon fi ngir diina taxaw lan lañ fi bàyyi woon anamu lii la mooy ñun pour ñu dajaloo nangu góor ak góor di sëy loolu la borom bi subhaanahu wa taala ne xam ngeen lan mooy fay ñi xaaj diina ji ñaar gëm li weddi lii fa ma jazaau za man yafalu zalika minkum xam ngeen luy fay mu ne illa xizyun fi lxayaati dunia lu dul toroxtaange ci àdduna rek mooy la xew tey ñoo ngi nii quatre-vingt-quinze pour cent musulman waaye mënul feeñ fenn quatre-vingt-quinze pour cent la ñu wax Sénégal ëpp na ko sax ñu ne ñëpp ay jullit lañ waaye loolu fan la feeñ feeñul feeñ ci suñu dund biir jàkka yi sax loolu feeñu fa waxuma laak nag amul fenn fu mu feeñ doo dem fenn ci dund jullit yi ba gis nii kat lii tax lu tax ñuy doxal nii xam nga lu tax ñu ne waa ñu ne l'islam moo ko wax nii déedéet foo dem nit ñi seen tarixa lam wax la ñuy def seen kilifa nu mu doon defee lañ koy defee ñoom wala waa kër gi seeni aadaay maam seeni bànneexi bakkan ni ñu gisee mbir mii lañ koy defee lañ koy defee te yonent bi waxoon na wallahi laa yu'min wallahi laa yu'min wallahi laa yu'min ahadukum hatta yakunu hawaahu tabaan lima jitu bihi ki yàlla yónni woon ci ñun nee na kenn ci yéen ngëm yàllaam du mën a mat lu dul day sànni ay bànneexi bakkanam topp man Muhammad li ma indi dañuy sonal sunu bopp lii day dem rek lii di ñëw kii day dem kii di ñëw ñuy dund di dee du ñu mën a am jàmm ci réew mii du ñu mën a nekk ay jullit du ñu mën a féex lu dul dañoo def li yàlla kub yonent bi wax borom bi subhaanahu wa taala moo wax ci qur'an wa man arada an zikri fa inna lahu maishatan danka ñépp ñoo xam ne dañoo bàyyi sama doxalin man yàlla dañoo bàyyi man yàlla li ma wàcce man yàlla li ma rëdd nit ñi dañ koo lànk bañ a def yàlla nee na noo ñooñu duñu dund dund bu nëtëx ci kaw suuf ñooñu duñu am jàmm ñooñu dund bu karaj la ñuy dund loolu yàlla moo ñu ko wax te biñ ko yàlla waxee ba léegi saa yu xëyee teg ci bët parce que yàlla moo xam alaa yaalamu man xalaq wa huwa allatifu alxabir aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwa alghafuru rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله وكجلدي نداء woote gu ñuy woote la bés bu ñu yàlla nattoo loolu ñuy rumandaat ñu jëmale ko ci kaw na jullit yi jóg taxaw mbokk yi jullit yi ñooy soldaaru yàlla ci kaw suuf xanaa da ngeen bëgg a fàtte bi su badr keroog jullit yi ñetti téeméer lañ woon ak fukk ak ñett yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam daf leen xool ca seen mbooloo mu ndaw ma ci seen lim bu néew ci seen yére yu gàtt ya ci seen néewub lim ci néew lu ñu war néew ngànnaay yi yonent bi rongoñam daal di tuuru mu ne yàlla ñii rek nga fi am te tey jii de buñ reyee ñi kenn dootu la jaamu ci kaw suuf julli di daal di sappe caaxaan daal di sappe waaye ñetti téeméer yooyu Afrika ñett yàlla may leen ndam ci kaw dëkk ci kaw yéeféer yi ñun ñaata lañ ñun ñaata lañ suñu toogee ba assemblée assemblée ñaata nit a fa nekk ñu ger leen alalu àdduna ba ñu jàllale loi bi mooy jeex na Sénégal yàqu na parce que xam ngeen ne mbon gi yëpp ci école yi lañ koy yaree ci lycée yi CM yi école secondaire yi primaire yi gis ngeen xale jigéen yi kenn solootul ñëpp a ngi futteeku ñëpp a ngi noppi xale yu góor yaa ngi ni kenn solotul sa tubéy xam ngeen ne xale bu góor bu dul sol tubéy nekk góor jigéen lu yomb ci moom la ku dul sol sa tubéy kooku pour mu nekk góor jigéen lan moo ci des xale bu góor buy def yaramu neen tubéyam a ngi ci biti nopp bi mu ngi ko bënn bopp bi mu ngi ko baram lan moo ci des mi ngi takk ay lam mi ngi takk ay petaaw ay xaaw lan moo ci des ci góor jigéen gi lu dul xanaa mu góor jàpp ko won wonal ko ginnaaw di séy ak moom loolu rek a ci des loolu lépp ñëpp a ngi ne tekk kenn du wax éducation bi yàqu na njàngale mi yàqu na dëkk bi jikko yëpp a yàqu sàngara say ci buntu école yi lañ koy jaay mbuus cent franc amul kenn kuy wax am na benn waay boo xam ne dafa topp mbir mi topp mbir mi ba tëngéej mu topp ko ba gis usine bi koy defar mu woo ay kilifa bi mu raccroché téléphone am ñu woo ko di ko menacé xoolal loolu boo noppul ci li léeg ñu rey la jullit warul ragal de ibnu taymiya da daan wax bu ngeen ma rayee ma dugg aljanna bu ngeen ma exilé ma def tourisme am xam-xam bu ngeen ma tëjee ci kaso bi ma wéetal sama borom jullit du perte imma nasra wa imma sahada keroog ba jullit di tegee qaida boobu seen kanam mooy yàlla am ndam rek wala dee dugg aljanna kenn mënu leen a woon kenn mënu leen woon a tënk kenn mënu leen woon arrêté way xoolal tey jullit lan lan leen yare mooy njëriñ loo fekke suñ la woon tey assemblée suba lundi dañuy woote loi bi na jullit yi ñëw wallahi doo fa fekk fukki jullit fukki jullit yu mat tey yu jullit si àjjuma doo leen gis foofu lu tax parce que jaralu leen waaye buñ ne woon mburu mi de dañ koy yokk na ngeen ñëw nga gis ñëpp ñëw ku nekk gàddu sa jaasi ne di dee pour mburu wala muy dee pour ceeb wala muy dee pour dugub wala muy dee pour salaire am bu ko kenn laal waaye buñ ne xawaidul islam ponki lislaam yi ñu ngi koy xëtt jóg leen nga dégg ku nekk naan inna li diini rabban yahmihi allahu akbar inna li diini rabban yahmihi diina ji am na boroom diina ji yàlla dina ko aar li waa màkka waxoon keroog ba ñuy toj kaaba gi ñu dajaloo ci kanamu abdul mutalib ne ko abraha dafa war a ñëw toj kaaba gi waaw loo ñuy wax ñun mënuñu aar kaaba gi amuñu armée waa ji ay ñay la yor ñun xamuñu loolu mu xam ne ñii kon naruñu xeex mu ne leen dem leen ngeen yéeg ci montagne yi dem leen ngeen yéeg ci kaw xeer yi ngeen seetaan ñu ne ko kaaba gi nag mu ne leen inna lil bayti rabban yahmihi kaaba gi am na borom borom dina ko aar est-ce que keroog borom kaaba gi aar na kaabaam wala aaruk alam tara kayfa faala rabbuka bi ashaabil fiil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil fa ja'alahum ka asim maakul keroog yàlla aar na kaaba gi waaye jamono boobu ak bi du benn tey lu bon bu naree am ci kaw suuf yàlla du wàcceeti benn soldaar dootul wàcce malaak dootul yónni jinne dootul def dara day toog di xool jullit yi ndax mat nañ ko ñoom la yàlla sant ñu taxaw pour aar diina ji waaye yàlla dootu ko aar yéen yéen a war a nekk ay jaasi nekk ay soldaar comme ni ñu gëmee tarixa yi tey suñ fi waxoon benn sëriñ ñu dagg loxo ba baaraamu ki wax loolu ki joxoñ joxoñ bi ñu dagg baaraamam su fekkoon ne waa ji dafa wax ñu dagg baatam waaye bu ñu waxee lislaam xanaa xamu leen ne lislaam moo jur sëriñ yi sëriñ yi bu ñu tekkee dara lislaam moo tax kon bu ñuy aar tarixa bi wala ñuy aar kër gi na fekk laalu ñu diine ji bu ñu laalee diine ji ñëpp war a jóg mbokk yi Sénégal li fi am dafa ruslu ñu toog ne dañuy dem assemblée di woote ay mbirum góor jigéen borom bi subhanahu wa taala keroog ba muy alak góor jigéen yi lan la leen def lan la ñu yàlla nettali yàlla mu ne dama leen a dama yónni jibril suba teel ñuy waaj a ndékki jibril ñëw samp ay laafam ba ci juróom-ñaareelu suuf yàlla nee na ma sempi dëkk ba borom bi munoon na leen a rey rek ñu dee waaye mbirum góor jigéen moo bon moo araam lu mu laal lu mu sol fu mu dëkk suuf su mu dox ndox mu mu naan xeer bu mu dëgg oto bu mu dëgg dugg loolu yëpp dafay alku loolu yëpp ay yàqu loolu moo tax yàlla mu ne jibril déjjatil suuf si ñoom sax lu ñu mës a gis sax bëggatuma koo teg bëgg man yàlla subhaanahu wa taala ndax mbon gu ñu bon góor jigéen lu mu xool sax baaxul yàqu na yàlla mu ne jibril déjjati loolu ñu déjjati ko ba kaw asamaan ba xaj yi dégg malaaka yi dégg xaj yi sab ñu walbati ko yàlla mu ne jaal na aliha saafilaha ndax ñoom lu ñu musoon laal sax loolu bu ko kenn gisati ci kaw suuf ku ñu musoon a xool sax bu la kenn gisati jaal na aliha saafilaha yàlla yemul ci loolu mu ne wamtarna alayhim hijaratan min sijjin musawamatan inda rabbik yàlla nee na ma towaat seen kaw ay xeer loolu ñun 95 pour cent musulman tey góor ak jigéen mag ak ndaw li fi nekk ci ay kilifa diine li fi nekk ci ay këru diine kenn ci ñoom bu waxoon rek problème bi rek la wu waaye ndeysaan li misli haza yazubu alqalb min kabadin in kaana fi lqalbi islaamun wa imaan lu mel ni mbokk yi mooy gis lu bon di noppi xol def ci ruy xol def ci seey bu fekkee xol boobu tarfatal ay ni islaam a ngi ci walla imaan bu ñu fàtte am na dëkk boo xam ne keroog bi yàlla waxee jibril na leen alak jibril dafa ne cëpp daal di delluwaat yàlla mu ne ko yàlla moo gën a xam mu ne jibril lu tax alagoo leen jibril ne yàlla dafa am dëkk ba ku baax ku fa nekk benn waaju baax laa fa fekk benn jaamukatu yàlla benn nitu yàlla yàlla sa benn waay laa fa fekk moo tax munu ma leen a alak yàlla mu ne ko jibril dellul soo demee njëkkeel waa jooju soo demee njëkke ko jibril mu ne yàlla lu tax mu ne daa gis ñu may moy kanamam soppeekuwul daa gis ñu may moy kanamam soppeekuwul dafa gis ñuy moy yàlla dara dara yëngatuwul yal na yàlla yërëm borom xam-xam bi ne su ma gisee lu bon munuma koo soppi mu ne in raaytul munkara falam astatiw an an ughayirahu abulu daman mu ne su ma gisee lu bon mu am ci biir dëkk bi munuma koo dindi su may tuur ndox deret laay tuur su ma demee wanag di tuur ndox deret mooy génn ana julit yi fan la julli di toll ana sunu ngëm ana sunu lislaam ana wootewu gi ñuy woote ne dañoo bëgg yàlla ana wootewu gi ñuy woote ne dañoo bëgg muhammad fan la feeñ ci sunu dund dañoo nar a toog nii rek ñuy woote ay luwa sunu kaw di woote ay luwa ba nar a dugg jahannama ba kañ yal nañ yàlla won dëgg mu wërsëgal ñu topp yal nañ yàlla won neen mu wërsëgal ñu sorik allahumma arina alhaqa haqan warzuqna ala tibai وارنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم من ارادنا بسوء فرده عليه ومن كادنا فكته برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم من ارادنا بسوء فرده عليه ومن كادنا فكته برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين وعذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين اللهم دمر اعداء الدين اللهم دمرهم تدميرا اللهم يتم أطفالهم وأرمل نساءهم وزلل الأرض تحت أقدامهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يو يلا تاي موي بيسو أجب بيس بي غنا تيد سي بيسي بيسي غاي نانغو ñaan ñu ngi lay ñaan député bi njëkk a signé kayit gi yal nang ko moxoñe moo ay njabootam ak mbokkam ak képp ku ànd ak moom bi rahmatika ya arhamar rahimin allahumma salli wa sallim ala abdika wa habibika muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin qumu ila salatikum yarhamukumullah
tawhid bu ko ci yor
bismillah
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
سووا واعتدلوا يرحمكم الله الله أكبر الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما أتاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله أكبر الله أكبر
سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوهى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر الله أكبر
سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله